ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñu dajawaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci li nga xamee ne nii mooy wàllu fiq ñu koy sukkandikoo téere bi di minhajul muslim bu abubakar aljazairi rahimahullah ñu ngi si woon ci liñ daan tuddee jumlatul ahkam ba yegg si tey ci almaddatu sabia fi lwasiya fi lwasiya ci la nga xam ne mooy wàllu testament yi naam tey jii gis nañu moom mooy nekk lii di fukkeelu fan ci weer wi ñu nekk di jumaada al ula suñu maam yi di ko tuddee li nga xam ne mooy rakki gàmmu incha allah ñu ngi war a jël kon fil wasiya su dee mbokk yi gisoo gisoo noonu nañ ko boo yoree sa téere mu ne taarifuha lu buñ lay xamal lan mooy wasiya al wasiya mooy hiya al ahadu moom mooy dig ba nga diggante wasiya mooy dénkaane mooy dig ba nga diggante binnazari fi cheyin ci ñu xoolal la dara surveiller la ko aw tabarru'u bilmaali ba'da alwafaat wala alal jooy joxe ci sa alal looy joxe ci sa alal gannaaw ba nga faatoo wa hiya bi hadha taarif naw'aan day nekkit ci boobu xamale ñaari façon ndénkaane al awalu wasiyatu ila man yaquumu bi tasdiidi dayn la ca jëkk mooy dénkaane ñeel kay taxaw ngir fayal la sa bor aw itaai xaqin wala jooxel la aq yu nekkoon sa kaw aw nazari fi sha'ni al awlaadi sigaar ila buluuxihim wala ku lay xoolal say doom yu ndaw ba baa ñuy majeur wasaani amma ñaareelu dénkaane ba wasiyatun bima yusrafu ila al jihati al muusa laha bihi mooy dénkaane ci loo xam ne alal la ju ñuy yóbbu ca walla ga nga xam ne danga caa dénkaane jëmi kon mbokk lii mooy li ñuy tuddee wasiya muy testament testament boobu nga xam ne mën na séddilu ko ay wàll doomu aadama bi boo yaakaaree ne am nga njaboot gu sew te ñooñi mën na am ba ngay faatu duñu majeur mën nga am ko ci bàyyiloo xel quoi diw dey sama njaboot gi moom dénk naa la ko dénk naa la sama njaboot bis bu ma fi jógee mboolem kilifteef ci ñoom jox naa la ko am ko woo ne ko diw dey am naa ay bor sangam ak sangam bis bu ma dee bor yooyee nañu fexe fay ko ndénkaane sangam nañu fexe joxe ko yii yépp day am beneen wàll gi mooy alal ji ma yor nañ ci jël joxe ci gox sangam jox sangam lii lépp buñ ko xoolee moom la ñuy tudde dénkaane amma nag lan mooy atteem ci lislaam te it jullit da nga war a xam la borom laxdari di jàngale du daganul jullit muy jóg di def dara xatta ya'lamu xukma allahi fiihi lu dul mu xam lan la yàlla àtte ci loolu kon nit ki ne su ma dee nañ def nangam ci sama njaboot wala nañ def nangam ci sama alal alwasiyatu mashruatun bi qawlihi bi qawli llahi taala loolu de lu ñu yoonal la ndax yàlla suñu borom moo ko wax ne yaa ayuha allazina amanu yéen ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm shahaadatu baynikum ida xadara ahadakum almawt na nekk seede ci seen diggante bu dee kenn ci yeen dee da koo teewe xiina alwasiya ci jamono ba muy dénkaane isnaani zawa adlin minkum na ngeen woo ñaar ñu maandu ci yéen ngeen seede loo leen loolu mi ngi noonu wa qawlihi taala ak waxi borom ba ba tey min baadi wasiyatin yuusi biha aw dayn mooy bala ñu séddoo alal ndono na doon gannaaw dénkaane bañ dénkaane woon wala bor yoo xam ne dañ koy fay wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam maa xaqu imri'in muslim du nekk mukk muy àq benn julit boo xam ne lahu ma yuusi fiihi am na loo xam ne da caa waroon a dénkaani yabiitu laylatayni muy fanaan ñaari guddi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda lu dul ndénkaanem ba ma nga doon lu ñu bind ca moom kon mbokk day wax ne suñu borom jalla wa ala mi ngi ñuy tegtal nit ki dem baragal day ngalawaay na def dénkaane dénkaane boobu la ca gën a mat mooy nga seedaloo ko ñaari jullit rawatina bu dee lu sensible jëm ci alal ju bëri ndax man nam bu benn jullit jógee rek ne diw day neewoon na ma nangam nangam duñ ko gëm ma bu dee ñaari jullit ñoo ko seede loolee day doon lu yomb a gëm gannaaw ba it suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy ñaax ci ne nit ki bu faatoo bala ñu jël alalam di ko séddoo nañu xool waay ba xam amul woon testament bu mu def am déet ci alal ji nañ ko joxeel ci gox sangam ak place sangam loolu fayal koy borom doog a séddoo lu ñuy séddoo rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne ki nga xam ne am na àq bu mu war a joxe te loolu mooy bor ya nga war a fay ak dénkaane yi nga war a dénkaane ne ne nit ki amul droit di fanaan ñaari fan lu dul ne loolee bind na ko ca loolu it mbokk dafa war su dee yàlla nattoo na la ay bor wala dénkaane yu la ay nit dénk loolee nga bind ko mu nekk foo xam ne bis boo deeyee nit ñi mën koo xam soo bokkee ci ñi munte bind it nga bindulu ko wala nga woo ay nit seedaloo leen ko loolu mooy kon yoonal nga ko yàlla yoonal waaye bokk na ci atte bi ba pare yow mu yor sa téere mu ne tajibul wasiyatu ala man alayhi dayn aw indahu wadia day nekk nag farata mu def ab testament ci bépp jullit boo xam ne yàlla da koo nattoo mu am ay bor wala yàlla nattoo ko mu yor ay ndénkaane ku mel nii moom loolu da ko war a bind leeral ko aw alayhi xuququn xashiyata an yamuut fa tudia amwalu nas wa xuquqahum wala ay aq yoo xam ne waroon na koo fay masalan ñu ko doon liggéeyal mu war leen a fay loolu lépp day dellu ci ay bor wala liggéey boo xam ne moom da ko waroon a taxawe yooyu yépp waroon na ko leeral bala muy dee di neenal li nga xam ne mooy alalu nit ñi ak seen àq te bu boobaa fa yusala anha yawma alqiyaama loolu day bu amee dañ ko koy laaj yawma alqiyaama kon wasi a ñaar yooyu la séddale ko bi njëkk mooy farata lan mooy farat ci testament mooy koo xam ne da ngaa yor ay bor wala ay dénkaani amma loolu nag bu paasee kama tustahabu alwasiyatu liman lahu maalun kasir wa warasatuhu agniya sopp nañ nag lool ki nga xam ne sopp nañu ci mu def dénkaani koo xam ne yàlla may na ko alal ju yaa ca ña koy donnu doon ñoo xam ne ñu woomle lañu ku mel noonu day sopp nañu an yuusi bi shay'in min maalihi sopp nañu alalam joojee mu jël ca def ci ab dénkaani su ma dee nañ ma ci defal nangam nangam nangam sulusan aw aqal li aqribaihi min gayri alwarisin loole mën na nekk ceeru alal ja wala lu gën a néew ceeru alal ja mu jagleel ko jege ñaaleem ya nga xam ne duñ ko donn mboolem ko dul donn rek day dugg ca loole mi ngi noonu loolu aw li jihatin min jihati alxayr wala mu yóbbu ko ci benn jubluwaay ci jubluwaay yiw yi mooy jàkka yaag daara yaag ñay woote ci lislaam ak ña nga xam ne nii dañuy fajoog ila axiri mooy place yi nga xam ne place yiw la lama rawa annahu annahu sallallahu alayhi wa sallam qaal yaqulu allahu taala bokk na li ma ruya ci jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne suñu borom yàlla day nee na yabna aadam sintaani lam yakun laka waxidatun minha minhuma e yow doomu aadama ñaari mbire ngi nii ñaari mbire ngi nii di xéewal gu ma la defal te benn du sag faggu téef ja'altu laka nasiban min fi malika xiina axastu bi kazamik may naa la sa teeru alal heure bu ma demee bay jàpp li nga xam ne muy sëg put ay dem nga ba dee rek moo des fi yow su booba alal da ngay bay yépp may naa la ceer ba nga def ca lu la neex li utahira ko bihi wa uzakkiika ngir ma laabale ci say bakkaar sellalal ca yëkkati la ca say daraja te loolu it nekk xéewal gu rëy ma aadama yu bëri suñu borom nee na bu ñuy dee dañuy wax rabbi irji'uun e waay yàlla may ma mu dundaat tuuti rek la'alli a'malu saalihan fi ma tarakt ngir ma def lu baax ca la nga xam ne dama koo bàyyi suñu borom yàlla nag ngir xam lompañu doomu aadama moo tax mu may la sa teeru alal alal ji da nga koy jël di ko jëfandikoo nu mu la neexee di ci commerce du dugg lu la neexee amaa nag gis bay faatu nga ne ceer bi lu ko yées nañ ma ci defal nangam nangam yàlla may na la ko ñaari li xéewal gi la yàlla defal salaatu ibaadi alayka baada inqidaai ajalik mooy samay jaam ñëw di la julli gannaaw bam jeexee sab dikk te loolu it di xéewal gu suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal ab jaam aka bëri ay bakkaar yu doomu aadama di deeyaale tuubu ko suñu borom yàlla mën leen ko ca mbugal waaye ba jullit ñi ñëwee tinu ko ñaanal ko yàlla yàlla baal ko yonent bi alayhi salaam nee na amul benn jullit boo xam ne ñeen fukki jullit yu bokkaalul ak yàlla dara jullee nañ ko lu dul yàlla baal ko am na riwaaye buy wax ñetti sàppee jullit jullee ko lu dul yàlla baal ko loolu tax borom xam-xam yi di sopp mbooloo mu num néew néew nañ ko def ñetti sàppee ngiree yàlla baal ko wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li saad ibn abi waqaas gis nañ it yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon na saad ibn abi waqaas xiinama saalahu an ilwasiya ba ka saat di laaj du jëm ci testament bu mu war a def dem nañ ba yonent bi alei salatu wasalaam ne ko aw suls wa suls kasiir man nga joxe day ceer ba waaye ceer bi xamal ne bari na innaka intazar warasataka agniya ay saat nga bàyyi sag njaboot ñu doon ñu woomle day xayrun min an tada'ahum aalatan yatakafafuna nas moo gën nga bàyyi leen ñu doon ñu ñàkk di dem di sàkku ndimbal ci nit ñi te mbokk kii di Saad ibn Abi Waqas xam ne moom la ñu mandargaale sunu jàkka ji dafa feebar bi mu feebaree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di ko seet si mu ne kay yómi yàlla yónni man daal dama bëri alal alal jooje ay doom yu jigéen rek laa yor moo tax ma bëggoon ko def test sama saraxe ko fi sabilillah mu bëggoon koo xaaj ñetti xaaj ñaar yee ma joxe ko yonent bi ne ko déedéet mu ne ko kon bàyyil ma joxe genn wàll gi bokk yonent bi ne ko déedéet mu ne ko ah kon bàyyil ma joxe ceer bi bokk yonent bi ne ko waaw xanaa ceer waaye ceer sax di ëpp na xanaa ceer waaye ceer sax di ëpp na loolee yow saat sa njaboot nga bàyyi leen ñu doon ñu woomle moo gën nga bàyyi leen ñu dem di dimbali ko nit ñi loolu lañ cay jëkk a déggee mbokk mooy islam itamit lépp da ko digg doomu su ko defee alal ji ngay wax su ma dee nañ ci def nangam lu mu bari bari mënta paase sa ceeru alal ceeru alal nag buñ ko waxee mooy li nga moom lépp li nga noonu li nga moom lépp du ne xaalis liquide bi nga yor kese waaye nit ki testament mooy bàyyi na kër bàyyi na oto bàyyi na tool bàyyi na nangam bàyyi na nangam loolu lépp bu ñu ko évaluer ceer ba am na droit def ci ndénkaani donte ne ne la gën mooy mu yées ceer ba lu gën mooy lu yées ceer ba ku mel ne Abubakar ni Siddiq radiallahu anhu moom ba muy def dénkaani def ne maa ngi def la yàlla tànnal ab yonentam muy xumusahu muy cinquième ba daa jël alal ja xaaj ko juróomi xaaj benn xaaj ba la ni su ma dee nañ ci def nangam ak i nangam muy wane it nañ njaboot gi mbokk jullit bokk na ci jaamu yàlla nga fexe ba bis booy dee fekk sa njaboot am nga loo leen bàyyee bañ mën caa sukkandiku bañ a ba bañ a dem di wër ngir nit ñi di leen dimbali di leen yor loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax sahaabi bu mag bi di Saad ibnu Abi Waqas bokk na ci li muy jàngale ñetteelu bind bi mooy shuruutaha shuruutul wasiya maa yeli lan mooy chart ci wasiya charte boo ko déggee mooy loo xam ne bu manqué rek mbir ma day yàqu bu manqué mbir ma day yàqu ngi mel ne sutural sa awra charte la ci julli ki julli jotoon mu jóg def yar mu neen ne day julli même bu doon ci biir néegam dañ naan ko julli gi baaxul wala laab ga mu war a laab charte bi tax lii di testament di baax yushtaratu fil muusa lahu daan chartool ca ka ñuy dénk bi nazari ila cheyin ci muy nar a wattu dara aw yakuna an yakuna musliman aqilan rachida bëgg nañ ci danañ sartu ci moom mu nekk ab julit bu ànd xelam boo xam ne tamit ku jub la is gayruhu la yu'man an yudayya ma usnida ilayhi ndax keneen ku dul moom kenn du am kóolute ci muy neenal la nga xam ne dañ ko jëmale dénk ko ko usnada ilayhi an nazaru fihi ci mu koy war a toppatoo di ko xool min adaa'i xuquqin aw riayati sigar na doon loolu dafay joxe ay aq wala dafay sàmm ay xale loolee kon bu dee ne lañ cey taamu moom mooy ki ngay xam ne dañ koy dénk day doon ànd xelam te àndul ak xelam kenn du ko dénk koo xam ne wóor nañu ne ab truand la alal joo ko jox mu lekk ko ku mel noonu amoo droit di ko def ay dénkaane naka noonu it ab yéeféer waroo koo jël di ko dénkaane rawatina lu jëm ci jaamu yàlla ñaareel bi yushtaratu fi lmarid an yakuna aqilan mumayizan malikan lama yusi fihi waa ji nga xam ne daa feebar ba pare woote di dénkaane dañuy charto jamono boobu mu ànd xelam di ràññee la muy dénkaane it moo ko moom bu dul loolu nit dana toll ci feebar foo xam ne du xamatu li muy wax ku mel noonu ay dénkaaneem kenn du ko doxal ñetteel bi mu ne yusharatu fi l muusa bihi an yakuna mubaaxan la nga xam ne moom la ñuy dénkaane jëme ca loolu daa war a doon lu dagan fala tunaffazu wasiyatun fi muharram kenn du doxal wasiya boo xam ne daa jëm ci lu xaraam ka an yuusil mar'u bi niyahatin alayhi ba'da mawtihi mu mel ni nit ki dénkaani ngiree ñu jooyal ko gannaaw ba mu deeyee loolu aadal yu amoon ca arab ya ndax ñoom dañoo gisoon ni kilifa dëgg-dëgg bu dee dañ ko war a baril di ko jooyal moo tax dañ daan dem di fay ay nit sax ñu ñëw ci kër ga di jooy aw yuusi bi maalin ila kanisatin aw bidaatin makruha wala koo xam ne ab julit la buy dénkaane ne alal ji lañ ko yóbbu ci église wala ci jaamu yàlla goo xam ne bidaa la bu ñu sib mu ne lañ ko ci defal alalam loolu kenn du ko doxal aw ila majlisi lahwin aw masiya wala ci place yoo xam ni ay caaxaan ak mooy yàlla moo fa nekk su boobaa ndénkaane boobee kenn du ko doxal ci moom te mooy ci gàttal mooy lépp loo xam ni sa waajur sa doom sa xarit dénk na la ko ne su ma dee nañ ko def ci man wala sama njaboot wala sama alal loolee doon lu xaraam dénkaane boobu kenn waru koo doxal bokk na ci ñeenteel bi yushtaratu fi man uusiya lahu bi shay'in an yaqbalahu ki nga xam ni dañ koo dénk dara ku mel noonu dénkaane boobu da koo war a nangu fa in rafadahu batalatil wasiya su dee bañ ko ko dénkee daa bañ testament boobu mu neen na wala xaqun lahu ba'da zalika fiihi te dootul am àq bu mu tey am maadaama bañ ko ko jagleel da koo bañoon mi ngi noonu gannaaw charte yooyu mu wax léegi nag mu wax ay atte yoo xam ne mën naa dab la nga xam ne muy wasiya mu nekkoon ahkaamuha ahkaamul wasiya hiya atte yi mën a am ci testament mooy yi awalan يجوز لمن أوصى بشيء بعد موته dana dagan ci ki dénkaane woon na su ma dee nañ ma defal nangam an yarji a fiihi su ko neexee bàyyi loolu aw yuxayiruhu kama yacha wala mu soppi ko ni mu ko neexe li qawli omar radiallahu anhu omar ne woon na yuxayiru rajulun min wasiyatihi ma cha ma yacha góor gu nekk am nga droit changer ci sa testament lu la neex te loolu it mbokk mi ngi noonu am nga ñoo wooloon seedaloo leen bi su ma dee sama alal gi nangam sama kër gi nangam sama njaboot gi nangam wala fekk da nga koo bindoon heure boo yégee lu gën loolu bu la neexee benn bàyyi complètement dénkaane ba nga dénkaane woon wala nga changer ko nu mu la neexee comme ni ko Omar waxee. nee na bind testament taxul mu nekk farata ab dig la boo xam ni maadaama da nga ne su ma dee nañ ko def tant que déewagu am nga droit changer ko nu mu la neexee loolu it di atte boo xam ne dañ ko war a xam li mu wax fii raddulul it xam ngeen ne suñu borom yàlla testament sant na ko góor ñi sant ko jigéen ñi borom bi subhanahu wa taala mu ne walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn seen soxna yi na ngeen leen donn waaye nag bala ñoo done nañu xool ndax soxna si deful woon testament te loolu bépp soxna bu yàlla dénk alal bépp soxna bu yàlla dénk njaboot am na droit bind wala mu seedaloo ay nit ne bis bu ma fi jógee sama alal jii day nañ ko def nangam ak nangam ceer ba am na droit saxe ko sama njaboot gii de nañ leen def ak nangam ak nangam loolee da ngay gis ne suñu borom yàlla ni mu ko may góor noonu la ko may jigéen ñaareel bi laa yajuusu liman lahu warasa an yusiya bi aksara min sulusi maalihi koo xam ne am na ñu koy donn amul droit di def testament lu ëpp ceeru alalam li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi kat waxoon na li Saad ibn Abi Waqas wa qad sa'alahu qaa'ilan fekk Saad da koo laajoon ayu mi yàlla yónni afa atasaddaqu bi sulusay maali ndax mën naa def testament ne bu ma filee bu ma dee alal ji lañ ko xaaj ñetti xaaj ñaar ya ñu sarxe ko muy deux tiers ya qaala laa yonent bi ne ko loolu kenn du ko def qaala fa chatru ya rasulallah mu ne ko kon bàyyil ma sarxe genn wàllu alal ja qaala laa yonent bi ne ko loolu doo ko def qaala fa sulus mu ne ko kon bàyyil ma sarxe ceer bi qaala a sulus wa sulus kasir waaw man ngaa sarxe ceer bi de donte ne ceer ba it lu bari la innaka an tazara warasataka agniya xayrun min an tada'uhum alatan yatakaffafuuna annas comme niñ ko jànge woon sànq mooy saat sa njaboot gi nga bàyyi leen ñu nekk ñu woomle duñ soxlal kenn dara moo gën nga bàyyi leen fu ne ñu fay wër di sàkku ndimbal loolu it mbokk loolu yeneen ci bi alayhi salaam wax la day tax ba ki bindoon testament te loolu ëpp ceeru alalam dañ fay wàcce ba mu dellu ca ceer ba ndax lu ëpp ceer kenn du ko def testament amma it boobu day fekk am na ñu koy doon mais koo xam ne danga nekk ab doxandéem boo xam ne amoo benn mbokk amoo kenn ku lay doon koo koy sa alal lu la neex mën nga ko caa def testament lu la neex mën nga ko caa def testament ndax amul kenn ku lay doon boo dee trésor public rek la jëm comme trésor public la jëm yow am nga droit def ci lu la neex ñetteel bi laa tajuuzu alwasiyatu lil waaris du dagan ngay def testament nan su ma dee sama alal nañ ci jox diw fekk kooku yàlla da koo jox ba pare mu bokk ci ñuy donn wa in qallat ak loolu lu mu néew néew xatta yujiizaha saairul warasa xanaa lu dul mboolem ña bokk te ndon la nga bokk ca dëppoo baada wafaatil muusi gannaaw bam deeyee ka nga xamee ni nii moom mooy kay dénkaane wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi kat alayhi salaam moo ne woon inna allaha qad aata kulla zi xaqin xaqa e waay xam leen ne kat yàlla borom aq bu ne jox na ko aq te jagañaaleem ba dee fala wasiyata lil waris kenn du def testament di ko jagleel koo xam ne day don illa an yasha al warasa lu dul xanaa dafa neex ña nga xam ne mboolem ñay doon mi ngi noonu kon mbokk nañu xam ne suñu boroom alal ji moo ko séddaleel boppam alal comme doomu aadama yi dañ ci gaaw indi problème looloo tax zakat ba moo ko séddaleel boppam ndono ga moo ko séddaleel boppam ñooñu yàlla sédd ba pare nag amoo droit yow di leen séddaat xanaa lu dul cooba rek ña lay doon ñépp masalan tey jii nga gis ku dee ne sama kër sàngam may naa ko sama doom yu jigéen ji wala may naa ko sama soxna nangam loolee mbokk doom yi bu ñu bañee amoo droit di def loolu kenn du ko doxal dañuy dañ koy séddoo ni ko yàlla waxe amma ñoom ñépp nag buñ dëppoo ne sunu bàyyi day li doon bëgg-bëgg mooy nangam nañ ko def su boobaa loolu moom seen mbiru bopp la ndax it ak ndono bu ñu matoon ñaar fukki ñett ñoom ñëpp ñu dëppoo ne mboolem lu suñ bàyyi bàyyi may nañ ko faatu mi islam lu ci wax dara kon dañ caa dëppoo waaye bu dee dëppoo amu ca bàyyi amul droit kenn koy doon mooy way jur ya doom ya ak ña nga xamee ne nii ñoom ñooy soxna ya wala bu dee ne amul ay doom yu góor frère ya nga xam ne dañuy donn ñu ñëpp amul droit di leen defal benn benn wasiya amaa bu dee duñu donn masalan am nga ay doomi góor képp ku nekk sa frère si fi nu dootu donn sa bàjjan ya sa tante ya même bu doon te ne ne lu mel ne cas bi ñu doon jàng ci ku ñu for am na ko doon laaj naan ndax kooku dana donn la ki nga for même boo ko yaree du donn waaye am nga droit jox ko ci sa ndono doom boo xam ne judduwul ci yoon am nga droit jox ko ci sa ndono koo xamee ne nii sa waajur la chrétien la ca yow yow moom na tuubul ba ngay dee su boobaa da ngay gis ne am nga droit jox ko sa ndono ñooñ ñépp mooy képp koo xam ne daal yàlla sidd ko joxu ko ndono am nga droit yow def testament ne su ma dee nañ ko jox nangam ci sama alal mi ngi noonu amma bu dee ñeenteel bi ida lam yafi sulusul muusa bihi bi kaafati lwasaaya su dee ceer ba waa ji dénkaane woon matul mboolem dénkaane yam dénkaane xusima ala aljihaati almuusa laha bisawiya daañ ko séddalee ca jubluwaay yam dénkaane woon ci ak yemoo kal muxaasasatu lil gurama comme nañ ko waxe woon ca séddoo ga nga xam ne dañ koy séddale ñu yoroon bor ya waa ji ne woon na suma dee day jàkk jee nañ ma fa joxel un million sama xarit diw nañ ko jox un million sama ñoom bàjje nañ leen jox nangam nangam nangam wax loolu mu wax bi mu waxee ñu xool moom loolu mu wax lépp kat mat na cinq millions ca alal ji nga xam ne moom la bàyyi neuf millions la kon trois millions dong la am droit joxe ko kon dañuy jël trois millions yi ñu séddale ko ña nga xam ne ñoom la waxoon ci pourcentage bu toll ne ba mu waxoon ak ñoom ñu ngi noonu ci wàllu googee juróomeelu atte bi mën a am ci wasiya mooy laa tunaffazu alwasiyatu illa ba'da sadaadi duyun li nga xam ne mooy testament kenn du ko génne lu dul ba ñu fayee bor ya ba pare li qawli ali radiyallahu anhu ali kat nee na woon qadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi dayni qabla alwasiya yonent bi atte na ci ñu fay bor ya bala ñoo def testament wa zalika li anna dayna waajib ndax fay bor farata la wal wasiya tabarru te génne testament loolu moom coobarewu la ci sàkku tiyaaba wal waajib farata muqaddamun ala tatawwu moom moo jiitu ca la nga xamee ne nii mooy ak coobare te loolu it mbokk da lay won li ñuy tuddee manzilatu sunna fi lislaam mbokk sunna ci lislaam da ngay xam ne sunna mooy atte alquran waaye du alquran mooy atte sunna suñu borom dana yonent bi alayhi salaam wàcce naa ci yow téereel bi ngir nga leeralal ko nit ñi kon li yonent bi leeral loolu la ñuy jëfe amma bu dul woon ak sunna yàlla lim ñu wax wax na ko baamu na ko lu jege ñeenti yoon ci téere bi min baadi wasiyatin aw day danaan nañ génne wasiya ba ak bor kon wasiya la yàlla jiital waaye sunna daf ñuy jàngal ne déedéet bor yi la ñuy jëkk a fay ba pare su dee alal ja daa jeex-jeex na kuy donn du donn wasiya amatul bàyyi woon na cinquante millions bor yi cinquante millions la dañuy jël cinquante millions fay bor yi terminé doom du donn wasiya amul amma loolu mooy la nga xam ne moom la sunna jàngale te loolu it di mbir boo xam ne lu jara di bàyyi xel la ñu ngi noonu naam kon fay bor farata la amma testament coobarewu la kon loolu la ñuy jiital bu dee juróom benneel ba mu ne tasixu lwasiyatu bilmajhul aw ilmaadum nit ki am nga droit def wasiya ci lu ñu xamagul wala lu amagul naam id hiya tabarruun wa ihsan ndax nekkul lu dul coobar wu génne sa alal ak def ak rafetal fa in xasalat fiha fa ni am loolee bu amul bu amee baax na wa in lam taxsul fala xaraj su amul it benn xat-xat nekku ci wa dalika ka an yuusiya almaru bima tuntaju ganamuhu mi ngi noonu aw bima taxulluhu ashdaaru mu joxe ci misaal mi ngi mel ne waa ji ne woon bu ma dee day sama jur gi lépp lu judd ren nañ ma ko joxal diw masalan wala sama tool bi bu ñoree lu ci ñore yépp nañ ko jox diw loolee am nga droit tonte ne xam nga jur gi lu ñuy jur donte xamagoo tool bi lu muy génne waaye maadaama coobarewu la rek ñaara mën a am jur nañu nga joxe ko baax na juruñu it amul kenn koo lor ndax coobarewu rek la misaal boobu la ca joxe juróom-ñaari atte bi mën a am ci testament yasihu qabulul isa fi xayaati almuusi wa baada mawtihi dana dagan nit ki nangu dénkaane yeñ ko dénk fekk waa jaa ngi dund mu ne sama alal ji teg naa ko sa loxo bi su ma dee géréel ma ko sama njaboot gi géréel ma ko nga ne ko d'accord nit ki mën naa dee ba pare it ba ñu xoolee ay mbindam gis dina ah dana woon day sama alal responsabilité jox naa ko diw sama njaboot responsabilité jox naa ko diw loolu it bu la neexee nangu ko gannaaw ba waa ji faatoo ba pare kama ana lil muusa an yazila nafsahu noo nit l'islam may kañ joxoon responsabilité bu ko neexee naa déedéet man loolu attanu ma ko mu dindi ca boppam mi ngi noonu xaalama yaxsha di daya ama wasiya fiihi ma wasiya fiihi heure boo xamee dem na ba jàpp ne man kat responsabilité bii bu ma ko gàddoo mën naa sànku am na droit ne déedéet yow mi dund dénkaane seetal keneen wala mu wax ña koy ndonn nday don ne ah nañ seet keneen waaye man uma kattanu di gérer alal bi mi ngi noonu mooy ma usiya fihi min maalin aw xuququn aw yataama da doon loolu alal la wala aq yum wala joxe wala ay doomam yu ñu ko bàyyee ni mu amee droit jël ko la am droit ne ah nañ seet keneen waaye it lenn dong ma ko ko war a yóbbe mooy ragal ne moom bu ko yoree dana ko neenal loolu mi ngi noonu juróom-ñetteel bi mboo ko julit man uusiya fi shay'in muayyan laa yajuzu lahu tasarruf fi ghayrihi koo xam ne dañ koo dénk lenn amul droit di jëfandikoo la ca des masalan kii dee na la sama njaboot gi dénk naa la ko loolu la la wax ndax loolu day tax nga am kat nga am droit ca alalam la wallahi njaboot gi la la wax alal ji seen néew ci dénk naa la alal ji njaboot ga seen néew ci moo tax mu ne amoo droit di jëfandikoo ca leneen mi ngi noonu li adami wujudil izn ndax kenn joxu la ci ndigal iz la yasixu shar'an tasarruf fi xuquqi nas bi xeyri iznihim ndax kenn amul droit di jëfandikoo ci aqi nit ñi lu dul seen ndigal amma nag bu dee waa ji dafa laa woo ne la daal dénk naa la sama gannaaw sama alal ak sama sama njaboot ak yépp daal bis bu ma faatoo dénk naa la ko su boobaa moom lépp lu mu bàyyi gannaaw nam ca daan taxawee am nga droit taxawal ko ca loolee juróom-ñeenteel bi iza zahara ala al mayit daynun ba'da ixraaj al wasiya su dee ne ay bor dañoo feeñ gannaaw bañ génnee dénkaanee ba pare fa laysa al wasi damaanu zalika dayn ka nga xam ne dañ koo dénkoon islam di ko teg muy garantir bor boobee li annahu lam yakun qad alimahu wa axfalahu ndax nekkul woon di ko xam ni ko sàggane wala huwa qad farrata fi ma ahida ilayhi te it sàgganewul lañ ko dénkoon ndax waxoon nañ ko joxal dénkaane sàngam fayal bor sàngam gisul bor mu joxe dénkaane ya kon beneen bor bu ñëw it moom loolu moom yoonam néew ci xëy na ci yeneen àq lay doon gu ñuy topp ay ay mbokkam bu dee fukkeel bi ida awsa al maru bi cheyin muayyan summa talifal muusa bihi batalat al wasiya nit ki bu dee dañ koo dénk dara loolee ñu ko dénk ci wasiya daa di yàqu wasiya ba daa yàqu na wala talzimuhu fi maalil axar ñi ngi noonu te loolee du ko nekk di ko war ci fi maalihil axar ci alal jeneen judul boobee mooy waa ji joxe wasiya masalan su ma dee woon sama oto bii day may naa ko diw yàlla dogal oto bi yàqu ndax lislaam danaan la jëlal leneen jox ko déedéet maadaama la nga waxoon ne lii laa joxe wasiya yàlla indi na ndox ba mu yàqu warula ci leneen xanaa lu ko coobarewu ko loolu la ñuy wax ca tool ga loolu la ñuy wax ci lu mu mën a doon ci alal fukkeel béeg benn ida awsa al maru li waarisin wasiyatan su dee ne waa ji dafa dénk dénkaane aji donn mu daal di dénkaane jëm ci moom su ma lam yajizha baadul wara warasa lenn ca ñay doon d'accorduñ ci wa ajazaha al baadu leneen la d'accord al axar nufizat fi nasibi man ajazaha loolee daañ ko wéyal ca ciru ña ko wéyal d'accord ca duuna man lam yajizha duñ ko duñ laal nag ciru ña nga xam ne ñoom d'accorduñ ca wéyaluñ ko li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam illa an yasha al warasa ndax yonent bi nee woon na lu dul mu neex ngay donn te mooy niñ ko waxoon sànq rek lu bari woon ci ay doomu aadama dañ koy wax ni masalan su ma dee sama kër gi may naa ko diw na doon doom la wala jabar la te kooku day donn genn wàllu njaboot gi naa ñun day d'accord nañ li bàyyi wax ah yéena ko ko may kon geneen beneen d'accorduñu su boobaa ñooñee na d'accorduñu dañuy xool seen wàll ci kër gi ñu jox leen ko mi ngi noonu ñene d'accord nañu seen wàll ñu jox ko ko bàyyi wax fukkeel bi ak ñaar te mooy bi ci noom fukkeel bi ak ñaar bon mu ne man qaala fi wasiyatihi usiitu li awlaadi fulaan bi kaza wa kaza ki ne maa ngi dénk doomi diw ak diw nañ leen jox nangam sama alal kaane lil muusa lahu bi sawiya zukuran wa inasan kookee dañ koy jox ñañ ko dénk yemale leen ca góor ak i jigéen naam mooy sama alal ji may naa ko diw famille diw ñooñee buñ leen ko waxee ci arab bu ne awlaat day firi góor ak jigéen ñooñee dañ leen koy séddale ñu yemoon ca kepp ndax ak may la dug ndono kon góor ak jigéen ñoo ca yem li anna lafz al walad yashmalu zukur zakr wal unsa ndax arab moom bu ne walad mooy doom day indi góor ak jigéen yëpp li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yusikum allahu fi awlaadikum li zakari mislu hazi al unsayayn suñ delloo ci alquran suñu borom mu ne dénk naa leen ci seen doom yi góor gu ne nañ ko jox ciru ñaari jigéen kama anna man qaala usiitu li bani fulaan bi kaza waaye nag boo nee doomi góori diw day jox naa leen nangam ci sama alal kaana li zukur dunal inas inas su boobaa góor ñi ñoo ko yeyoo jigéen ñi bokkuñu ca wa man xaala uusi li banaati fulaan bi kaza koo ne doomi jigéen ñi diw may naa leen nangam fa huwa lil inas faqat su boobaa jigéen ñaa koy moom góor ña moomuñu ko gannaaw ba ca mujj nag man kataba wasiyatan wa lam yashhad alayha jaazat koo xam ne daa bind testament wóonu ko kenn ku ko seede waaye bi mu dee wóor nañu ne lii moom moo ko bind testament boobu dañ koy wéyal ma lam yu'lam annahu qad raja'a fiha fa tubtalu xiina idin wala tunfaz tunafaz xanaa lu dul ñu am nag preuve ci ne lii de moo ko bindoon waaye dellu woon na ci gannaaw dellu woon na ci gannaaw avant muy dee su boobaa kenn du ko doxal waaye tant que amuñu preuve ne dellu na ci gannaaw te ñu xam ne lii mbindam la wala lii ay waxam la yu mu waxoon ci enregistrement su boobaa loolee day doon dañ koy wéyal même bu doon tane ah seedaloowu ko kenn kon mbokk loolu mooy liñ doon jàngatee ci wasila wasiya xanaa di wax suñu mbokku caamin yi it ne bind wasiya taxula dee déedéet bind wasiya taxula dee wasiya moom da nga koy bind heure boo gisee loo ci mën a changer nga changer loolu jotewul ak dee dara waaye nag comme dee daa mën a bette li gën a wóor nga def wasiya yàlla dogal na tey ji rek maa ngi demoon benn ab rob fii ci yaraax benn xale boo xam ne presque ci ay quarante ans lay toll mécanicien xëy seen kër dem di liggéey ci atelier ba lay def accident loolu moo ko faat loolu muy wane ne kon dee day bette na doon mag nga na doon ndaw nga loolu it kon def testament boobee day baax lool mi ngi noonu yal na yàlla taxawuñu suñu dund taxawuñu suñu gannaaw wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ah soxna si moom bu ñu paree dañ ko war a bàyyi choix boppam waaw suñuy borom bi subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha allazina amanu la yaxilu lakum an tarisu nisaa karahan soxna si dañ ko war a bàyyi choix boppam borom bi subhanahu wa taala ne amuleen benn ngant ci lu ngeen gaaral képp ku faatu bàyyi soxna quatre mois dix jours sëñ Thiam am na droit ñëw gaaral sëñ Ndiaye gaaral sëñ Seck gaaral moom mu tànn ko ko neex waaye waruñu ko imposer na ko diw ngay sëyal te loolu moo am suñu àll yi mi ngi noonu mas na fekkee benn dëj bu yéeme fu xaw a sori tuuti ca gannaaw fu njëñ bañ jógee ci armeel yi fi ñu toog jóge ci armeel yi fa la ñu séddilee soxna yi diw diw diw diw diw diw mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne ak ceddo la islam nanguwut loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal mbokk yi maa doo xel bi dafa feneen fu mu nekk waaw ala kulli xaal la nga xamee ne rek moom lañ ci wax moo di ne ne la gën bokk na ci bind bi nga xam ne moo ci topp mooy nu ñuy bindee wasiya dañoo jël aada ne moom heure bu ñëwee ci benn masala gannaaw bi day wax ni ñu koy bindee masala yi passé yëpp waxuñu ni ñu koy bindee waaye bokk na ci lu am solo loo xamee ne nii wax na ko ci ni ñuy bindee wasiya loolee yow mi yor sab téere war nga koo jéem a xam mi ngi noonu ci minute bi des nii masalan def ne gannaaw ba nga waxee bismillahi rahmaani rahim da nga war a wax ni lii day la diw daa di wax sa tur bind mi ngi noonu maa ngi seedaloo diw ak diw ñi ma xam bu dee ne ay seedalu ñu am ne bi may bind sama testament bi maa ngi ànd ak sama xel di xam li may wax bu baax maa ngi leen di seedeel ni man day ku gëm yàlla la maa ngi gëm yàlla bokkaale ma ko dara maa ngi seede ne muhammad yonent yàlla la maa ngi leen di seedaloo it ne àjjana dëgg la sawara dëgg la maa ngi gëm ne allaaxira luy taxaw la yàlla dana dekkal ñi dee woon sama njaboot gi ak sama alal ji nde waaw subhanallah mu ne kon yéen sama samay doom ak samay jegañaale maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca topp yàlla maa ngi leen di dénk ngeen tënku ci sharia maa ngi leen di dénk ngeen taxawal diine mi ngi noonu maa ngi leen di dénk bu leen dee mukk lu dul da ngeen ne dee yàlla ci biir lislaam mi ngi noonu maa ngi dénk it ne man mii di wax nga xam ne maa ngi ñaan yërmande yàlla ñëw nekk ci man bis boo xam ne dee ñëw na ci man dee googu nga xam ne bind na ko ci mboolem ay jaamam maa ngi leen di sant ngallaawaay nañ peeg sama alal ba xam ko nañ ci jël loo xamee ne nii dañ ma koy taxawoo te it mbokk li gën doomu aadama lañ koy sàngeeg lañ koy kii bokk ci alalam gannaaw ba nañ ma xoolal samay bor ñu gaaw ma koo fayal mboole mi dénkaane yi ma dénk yama nit ñi dénk amoon ci ma nit nañ ko gaaw génne delloo ko la nga xam ne moom mooy seeni boroom mi ngi noonu gannaaw ba it sama alal ji ma moomal sam bopp jël naa ci cër sàngam nañ ma ko joxal diw nañ ma ci joxal diw joxal ma ci diw la ca des ñu doog koo séddale ña nga xam ne nii dañ dañ dañ koy donn loolee mbokk benn exemple la boo xamee ne nii ku ne ci ñun war koo bàyyi xel te mooy la gën la ngay dénkaane sa gannaaw may ragal yàlla yaa ngi yéen dépp yéen a ngi dégg suñu borom mu ne am kuntum shuhadaa id xadara yanquba al mawt ndax yéen a ngi fekke woon keroog ba yanquba di waaja de iz qaala li banihi maza taabuduuna min baadi mi ngi noonu te ibrahima moo ko jëkk woon ba maamam ja wa wassa biha ibrahima banihi ya baniya inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun e yéen sama njaboot xam leen ne yàlla tànn na leen diine li ma leen di dénk fexe leen bi bu leen deeludul da ngeen jébbalul yàlla gannaaw ba it la ñëw ci yanquba alayhi salatu wasalaam mu wax ak njaboot gi la même chose ba yéen sama njaboot bi su ma demee woon leen gannaaw lu ngeen di jaamu ñu ne ko du ñu jaamu lu dul yàlla bi nga doon jaamu sa baay Ibrahima di ko jaamu sa baay Ishaq di ko jaamu sa baay Ismaïl di ko jaamu te mooy yàlla benn la te ñun kooku lañ jébbalul loolu it moo tax ba li ngay war a bàyyi xel yow mi yàlla dénk njaboot de bis booy dee lan la gën a yitteel mooy nu ñuy taxawee ci wàllu diine plutôt que la ñuy taxa ci wàllu adduna adduna bi moom ñuy baax yéefiri sax ñoo ci ëppale la la war a jëkk a yitteel mooy su ma dee sama njaboot gi nu ñuy dundi diine sama gannaaw ndax daan dund ci ngërëmal yàlla loolee jëriñ ma jëriñ leen wala dañuy jaar feneen loolee loo ca mën a jubbant loo ca mën a dénkaane nga dénkaane ko ca moo gën a yey nga bàyyee loolu leen fukki milliards ak juróom loolee kon ku nekk bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla taxawuñu ci njaboot gi taxawuñu ci alal ji barkel ko suñu ganam barkel ko suñu gannaaw wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ah ah non ah ah waaw waaw wax nga dëgg kay wax nga dëgg kay wax nga dëgg wax nga dëgg kay barakallahu fikum